yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën gaaw produit 100 pour cent bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga bolé ko lem ak limon diko nan matin ak soir mu dal di safara say jafe-jafe neexal sa bir negu sëy am nañu pomade bo xamné ne boo ko diwee ci sa awra mu dal di kuy dëgëral di jël ko wayé nak duko guddal manila bile pomade momitam dafa naturel lépp loo ci jël de le la jural effet secondaire Je ak ñun yow mi ko ci 77 751 59 59 ou wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boko amul ñu daldi lay une sa xaliss ñun rek Je le remercie pour ce qu'il a fait. Et je crois que maintenant, euh, le plus, euh, plus

pour aussi c'est normal jamono jii du objectif quand c'est un président de la République moo la nommé mais je crois que aujourd'hui euh, moi, je crois à une seule chose. Le meilleur, quand il est mal entouré, c'est le plus mauvais. Le plus mauvais, quand il est bien entouré, c'est le meilleur. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la vie, il faut s'engager. Moi, je vais m'engager auprès de ma jeunesse. Et pourquoi pas, l'avenir, euh, être ministre de la jeunesse, ministre de la culture, ou même président de la fédération, on verra. En tout cas, Mangi Djang, c'est dernière, nous nous ramenons. Maintenant, nous est le président Augustin Senghor. elle nous monsieur Ablaye Sow ministre ku mel na tey jii ma yaasin ma ak ñi may liggéeyandool ñëpp

Parce que les morts de football, et je crois qu'aujourd'hui, nous retrouver, parler de. Parce qu'il y en a à qui, tout nous qui tout le temps. Mais vous nous retrouvez, nous nous Wartan, euh, de partir le et je crois que c'est ça, c'est Monsieur du football local avec violence, qui sont nous, nous vraiment, nous avons C'est une campagne de communication, ne serait-ce que pour nous euh, diminuer un peu. Non, football, nous avons violence. violence. Football, nous avons parce que nous, nous Sénégal nous sommes nous nous, nous nous nous, benn nous de nous étranger étrangers. étranger nous devons violence il faut que soyons positifs, il faut que soyons cohérents. et je crois que le football avant tout c'est un jeu

yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour cent baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ni la bile moom itam dafa naturel lépp loo ci jël d'où le la jural ben effet secondaire Je ak ñun yow mi ko de ci 77 751 59 59 ou wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am satisfaction totale boko amul ñu daldi lay dello sa xaliss ñun rek ñoko